asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. gannaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa ñu ngi julli ci sangu-sang yi ki gën ñëpp te kenn gënu ko muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci li ñu yàlla may ñu fekkee mbébét dara yàlla may la nga fekkee rekk cant boobu oustaz kenn mënu kaa rawatina nag a ah, ñu mbébét fekke ak tal kon comme yàlla may ñu fekkee ko ba pare nag ñu tal ko kon dañuy sant yàlla bu baax ci loolu amaana am na ñoo xam ne fekke woon nañ sax nisër ba ñuy ñëw te fekkatu leen fii ci kër gi ñu ne ñu nga këru dëgg ga yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen amoon na ñu am yéene it nekk ci leneen tawat ak leneen ak leneen yàlla na yàlla jàppandal yépp bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah dafa mel ne dañuy tàmbali mbir mi ñu ngi nuyu ñëpp ah di jox ah, comme niñ ko baaxoo de seen Cheikh Ndiaye moom mi nga xamante ne it ah, duñ ne guleet ci béréb bi ak hôpital Youssou Mbargane yàlla yàlla dëgëral ko lépp loo xamante ne lii day saa su ne lépp lu ñuy def rek loxo mu ngi ci biir ah kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax bu màggal amee it Mama Fall la si taxaw lépp day ñëw fii ah, Euh, mission bii dem loolu lépp incha allah dem Touba kon ñu ngi koy jaajëfal moom ñu ngi koy sëñ Cheikh nga joxe ñaan rek ñu tàmbali dugg ci mbir mi incha allahu rabbi wasalaatu wasalaam ala rasulillah ginnaaw ba sant yàlla julli ci yonent bi noo ngi nuyu ñëpp tàmbali ci directeur ba ci ki ci gën a gën a ndaw kon nañu mëslu seytaane jàng fatiya ayatul kursi yu fallax ak naasi yàlla na ko fi teew diwén ak jàmm te kenn bañ a manqué bisimilah bisimilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaan rahim alhamdulilah maaliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqiim allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum كما يقول أعوذ بالفلق من شر ما قلق وأعوذ بالناس مالك الناس إلا إناس وتف بنا وخوينا وكل نفرة اليمن واليسر والخير سكت اللهم من كل كريم أكرم أنا ما قدر وتكرمت لو كان كيمان ولا تنسى علينا وجهه بالشكر بلا كفران تكتب بكر Directeur Amadou Ndiaye ak ki nga xamante ne moom mi directeur hôpital bi yàlla tekk ci bopp bi yal na yàlla dëgëral ko te it yàlla ku mu nar a yan ku ne dina la téeñal te bu la téeñalee it yan bi dina oyof kon yàlla na yan bi oyof ak nga xamante ne mooy Seydi Hadji Malick Diawo di secrétaire administratif et finance hôpital bi topp ci moom yàlla na yàlla dëgëral ko may ko wér ak ki nga xamante ne mooy Euh, monsieur Mondio Bessek di délégué du personnel mom day buñ ko tuddee rek nyep. nañ ñëpp tudde nañ ñëpp kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom it yan bi yàlla oyof ni personnel bi yëpp àndee que ne yaa ñu jiite yaa ñuy waxal yàlla na yàlla dëgëral làmmiñam def si fasaaxa ba lépp lu muy wax rek yàlla may ko si ndam te it yàlla mo am ndam di may di may ku ko neex yàlla na yàlla may ka ci loolu di gërëm ki nga xamante ne tey amical hôpital Youssou mbargaan amical des agents de l'hôpital Youssou Mbargane Diop muy docteur Bintou ngoone Samb di présidente bi ak président vice présidente am secrétaire bi ñu yóbbaale directoire bi yóbbaale assemblée bi yëpp macha allahu rabbi Mame Sob Gueye di secretaire général bi ah, ki nga xamante ne mooy docteur Ndeye Marème di vice présidente bi ñu yóbbaale ñëpp. kon gis nañ ñëpp particulièrement ak nga xamante ne mooy président commission organisation parce que mbir moo gis day am organisation moo tax muy dem donc moom te buñ nee ah Mama Fall buñ ko waxee ñun ñëpp dañuy ànd tënku ci biir parce que tey activité lañ am amicale bi dafa organiser conférence mu nekk benn activité ci biir amicale bi kon ah li nga xamante ne mooy organisation boobu commission organisation jiite ko kon tey jii képp buñ accès ba si bés bi ci côté organisationnel monsieur Mama Fall ñu ngi koy gërëm mu yóbbaale ñëpp macha allahu rabbi di gërëm nag ki nga xamante ne dañ koy ñaanal yàlla ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul ba ñu Seydi Ahmed boole ak moom ba léegi bàyyiwul muy ki nga xamante ne mooy oustaz Alioune Diagne mu ngi feddale wóllëre saasu ne kon yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla nag dafa am kër wala am na bërëb wala am na néeg ñun ñu am lu jafe ci biir amaana boo demee structure yoo xam ne u oustaz Alioune bu àjjuma jotee walla leen néegub yàlla ba jullit yay daje keneen ay ñëw. di jooxe di leen jiite mais ñu it yàlla dogal ci biir hôpital bi loolu ñu am ka fa kon imaam Adama Samb ñu ngi koy nuyu bu baax parce que néegu bu yàlla bi moom rek la yàlla am de te it bu waxtu yu jotee moom mooy ñëw yàlla dogal mu nekk ci kanam kon yàlla na yàlla dëgëral ko ni mu ñuy jiitee ñii ëllëg képp ku mu jiite ku ne rek yàlla nañu àndandoo mu jiite ñuy dugg aljana yalla mën nako yalla nako yalla def bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ah, ki nga xamantene moy docteur Bintou Ngone Samb di présidente amicale des agents de l'hôpital Youssou Mbargane mu dalal ay ganam sànni kàddu yi saafunte ak ñoom macha allah. ñep ñu ngi leen di nuyu euh, di nuyu également le représentant de la directrice générale de des établissements de santé. Nous euh, ngi ci yoon bi mais nous aussi nous ngi Nous di également la délégation du, représentant euh, de du maire de la ville de Rufisque Nous aussi nous ngi ci yoon bi. su euh, ma su ma parlé ci nous nuyu également ñi nga l'ensemble des personnes chefs de service de l'hôpital Youssou euh, l'ensemble de la CME euh, à leur côté également l'ensemble

ak suñu partenaire de longue date yi également ku ci mel ni docteur Diène docteur Diène hôpital bi lu mu sumb loxo ma ngi ci biir buñ ko yëgee buñ ko yëgul nag man mii nekk présidente bi te nag li muy def du ko du ko fësal man lay man lay woo ne ma yaay présidente ma ñëw mu jox ma ko ndànk te li muy joxe macha allah lu am solo lay doon donc docteur Diène yàgg euh, docteur bi Fatou bi nga àndal ñu ngi leen di dalal di leen ñaanal yokkute Euh, ñun nak ñu ñuy dellu ci waat di sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekke waat euh, ren ji ba mën a def suñu amal suñu quatrième édition de la conférence de conférence religieuse organisée par les agents de l'hôpital Youssou Mbargane euh, ginnaaw bi ñu toogee ñaari at yoo xam ne mbas mi jaar na fi donc lu bëri tënku woon na donc sant yàlla war nañu bi ñu mayee ñu fekke waat ren euh, mbébét ko comme ni ko Malick waxee yéene ko organiser ko taxawal ko ba bés bi yegg tay kon dara waruñu lu dul sant yàlla mi nga xam mo waral waral loolu euh pour ñëw nak ci thème d'aujourd'hui thème bi ñu jël ren muy renforcement de la cohésion sociale au sein de l'hôpital hum, euh, dafa nekk loo xam ne lu am solo la parce que euh, mbooloo mooy doole te buñu andé àndee boole xol yi tapé xol yi yaakaar naa ne défi yu bëri dinañ ko mën relever te in je pense que depuis quelques années ñu ngi hôpital bi mu ngi dox ci loolu te ñëpp ñu ngi gis euh, loolu li muy jur instant bi hôpital bi kenn xàmmeewul kii yee kii vraiment ñu ñëpp ànd bokk booloo bokk ndey bokk baay donc loolu la ñuy ñaan yàlla mu saxal ko donc duma terminer sans remercier ñi nga xam ne euh, bu dul woon ñoom affaire bi dina dina dina dina doy waar daal euh, en premier euh, la commission d'organisation euh, avec à la tête monsieur Mama Fall moom ak ñi mu andal ñep ils n'ont ménagé aucun effort pour que tay jii bés bi euh mëna jaar yoon donc mam yak sa commission yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier de remercier tout le comité directeur de l'amicale des agents de l'hôpital mais également de remercier l'ensemble de du personnel de l'hôpital ñi nga xam ne jàpp nañ ci parce que yaakaar naa ne euh, comme ni ñu ko waxee woon rek ci cohésion sociale bi mbooloo mooy doole te ñëpp jàpp nañ jàpp bi moo tax tey jii lii am donc du ma terminer sans ñaanal leen ci barke weeru koor bi ñu nekk ñaanal leen jàmm ñaanal leen salaam ñaanal leen wér ak yokkute yàlla jàmm yokk ci hôpital bi donc lépp lu ñu lu ñu mbébét yàlla na ko yàlla sotte yàlla ci yàlla def loxoom

di sant suñu retraités yi nga xamante ni ñu ngi fi ak ñi fi teew ñëpp di gërëm Baye Cheikh Ndiaye Baye Fall bi nga xamante ni hôpital lu mu nekk mu ngi si loo xamante ni yë yëkkati nañ ko mu ngi si mais docteur Diène aussi tamit vraiment ak Sili Kassa gis nañ ni collaboration bi ñu am donc euh, oustaz Alioune Diagne moom mention spéciale parce que foog naa ni ba ñuy tàmbali li ba ñuy

contexte bi nag metti na fi mu nekk nii mooy booy xool la xew Louga nga xool li xew ci yeneen structure yi boo dégloo sànq ministre bi li muy wax am na solo lool nee na am na ñoo xamante ni ñëw ngi ci hôpital yi nañu xoolaat seen taxawaay mais population bi nañ xam ne aussi tamit hôpital li ñu def lépp du lu bon yàgg nañ def lu baax tey nag bu fekkee ne dañu jàpp ne ah diw def na lii diw def na lii ñu bëgg a boole ñëpp ci benn mbuus ñëpp yemuñu te nag ñun ñii nga xamante ni ñoo fi ne nag nekk Youssou mbargaan fu ñu waxee Sénégal benn pour ñu góor góorgóorlu ñun dañ ñuy wax fukk ndax lañu weesu te nag waa population bi foog naa xam na ni Youssou mbargaan mu ngi am tànki kanam ndax ki nga xamante ni moo ko jiite lépp lu muy def mu ngi ciy waxtaan ak ñun ñi nga xamante ni ñooy personnel bi li ñu am ak li ñu ñàkk kenn mënu kaa xam ndax genn wàll ñi ngi ciy gis ñëpp ma maanaam sax amuñu salaire ay ay de transport la ñuy am mais servir à côté des populations qui sont tax donc nous sommes bi ñuy wax nga ñaanal sommes bu ni prestataires doon stagiaires doon contractuels de seen parce que nous population nous avons une population indulgente plus personnel de santé mais aussi personnel de santé est plus population qui est dilatée. parce que nous savons que ñi ñuy suñuy suñuy nous suñuy doom donc protocole mais je suis ñëpp parce que chaque jour maak ñoom la chaque jour lég lég mu neex lég lég du neex mais ñëpp xam ni daal ku nekk soxla boo am bu ñu sañoon faj ko ñu ñaan nag xaalis bi gën a dugg personnel bi gën a gis seen bopp ku fi nekk prestataire ñu embauché la ba ku nekk la ngay liggéey nga mën a am nga mën ko sutur la mën ko yóbbu sa njaboot wasalaam. adee rek pour mu gaaw ñaari ñi ci des mooy organisation bu taxawee am na nu ñu def ba mu taxaw ak nañu def nañu dugg. fan leen jaar ba mbir mi mën a taxaw présidente daal di koy wax léegi di ko cant di ko gërëm donc it kooku am na ñoo xamante ne dem na si ñoom àgg fa ba lii mën a taxaw ni ñu ni mu def ba lii mën a taxaw pour mu cant ak ngërëm bu daaneelee rek ñu jox directeur mu daal di ubbil wax kàddoom incha allah kon ma monsieur Mama Fall président commission organisation bu amicale des agents de l'hôpital su Mbargane mu ngoog alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa salim Malick xel day fat waaye xam naa li ma yëg sama yaram yéen ñëpp yëg ngeen ko seen yaram wala bu ma si demee yéen ngeen ko yëg am na ñu doon nekkal fii yàggul dara ñu bàyyee ko ofi te bu ñu fi nekkoon ganu ganu bu ñu teewul it comme li nga wax seeni dërëm dina fi yëg see ma bëgg ñu delluwaat ñaanal leen ku ci nekk ñetti lislaax mu fekk leen fu ñu tëdd ñun ñi fi des yàlla bàyyi ñu fi ba si kanam ñu jàng faatiha ayatul kursu yu ñetti lixlaas salaatu ala nabi wala salaatu bu waay man def ko mu yoolu kaamil ñen doon nekk ak ñun te jiitu ji sa kërug dëgg ga kullu nafsin saaxatal mawt ñu jiitu ji ñu ñaanal leen yàlla ñu dajee ngir mën de yàlla bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw bu ñu santee mbooloo mi yëpp ngi gërëm suñu invité yi di gërëm personnel hôpital bi malik amical bi moo organisé tey conférence bi amical bi nag hôpital bi moo ko jur hôpital bi mu juree amical bi amical bi personnel hôpital bi ñoo tax mu dëggu nekk amical dëgg tey bu ñu demee ba def lii ñoom seeni dërëm bokk na ci li ko def kon lu ñun di gërëm di leen sant ba ci top ñu ngi gërëm direction wu hôpital bi ki ci kaw muy Mamadou ñay directeur bi top di gërëm son collaborateur monsieur malik Diaw waye malik di gërëm ño xam ne tay deug deug bu li taxawé ñom ci lañu bok muy ki jitu comme ni ñi ci doc docteur Camara noonu la ñuy waxee ci le frère a notre frère Diawo muy Mame Boye Diawo masul tàyyi ci sañuy affaire kon jar na ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla bi ci topp mooy wax waxaat sax mooy docteur Camara kenn du moom wax naa ko léegi avant ngeen koy wax bi mu bi mu tegee fii tànkam ba léegi loxoom génnul ci hôpital bi kon yàlla na yàlla gën ko dëgëral di geureumal nak sama comité d'organisation Mali Boy franchement ay jigen ñu man goor ñoo ci ne man mi dañ ma jital mais bu do won ñom du ma dem bëgguma lim parce que mo limé nit gis ci bopam ñom ñep y compris yalla yalla yàlla len taxawal len man li fete la fi gis parce que lutax fete la fi gis tay ko romba ñi ñan la ñu ne famille su mbargane kon dañuy wax macha allah yàlla bu leen ceeb dugg am na ñeneen ñi foroon teew nag peut-être dog-dog moo leen jàpp wala ñoo xam tax li teew parce que fii boo xoolee tey ay góor rek ay jigéen rek fi ne bari su magane bari na ay góor kenn gisu fa góor waaye peut-être dañuy jàpp ne ñoom dañu nekk ci leneen moo leen tere waaye ñun de amical bi mu ngi oo képp ku nekk ci hôpital bi di yëngu la ñu oo ci lii amuñu kenn kuñ ci beddi ndey ak bàyyi la ñu bokk te yàlla bu saytaan dox suñu diggante. ah maama jërëjëf. fi nga jaar ba lii lépp am ah yow rek yaa ko mën a wax kon ñu ngi lay jaajëfal di jox nag ki nga xamante ne mooy directeur yàlla teg ci bopp hôpital bi ah kon directeur dañ lay jox rek. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ci jiital euh, kilifa diine yi fi toog yëpp di nuyu imam di nuyu ñoom kilifa njaay ak délégation di nuyu kilifa hôpital bi yëpp ak personnel bi ak waykat yi tamit euh, di ti nuyu nag particulièrement koo xam ne Malick da ko tudd léegi te c'est une vieille connaissance koo xam ne foog mu sa gërëm ko tuuti muy docteur Camara kii Ramatoulaye Camara la tudd bi madame Diop madame Diène non non jëkkëram colonel de l'armée il s'appelle colonel Daouda Diène su ma nekkee tey directeur d'hôpital xëy na genn gi moom la jëkkëram moom ma yeddoon conseil manema ne ma boo gëmee sa bopp góorgóorlu nga mën fi place mel fi ma tok. boobu c'était vers les années 1994 95 à Tambacounda moo doon suñu directeur hôpital Ma Abdou Gueye mi tok donc fi ñi fi gëna a xam la moom yi def naa ni bu fay am nañu ko njëkk xam nga si bëriwul donc euh, docteur ma xaw ma docteur la xaw ma dam parce que j'ai <laughs> fraternellement am habitude di ko wooyee waaw sax nee sama goro wa <laughs> loolu laa xam moo tax foog ma gërëm ko tuuti parce que dama ko xam avant les années 2000 donc Rama ñu ngi lay sant la gërëm yu baax yi ngay def ci hôpital bi yëpp mu ngi egsi hein maa ngi koy yëg colonel nag gisu ma ba tey mais na ma jégal <laughs> yow comprendre nga voilà di ci gërëm aussi retraité yi fi ñëw ñu ci bëri xamante wuñu mais def naa lien relation bi ngeen amoon dem bu rafet mu ngi fi ba tey ak ñi fi nekk waaw donc bu ma paree ci gërëm yi damay laal tuuti rek euh, ci amical bi

loolu mooy sama jàmm loolu mooy jàmm personnel bi yëpp ndax hôpital bu amul jàmm aussi dara mënu faa sotti fi mu ne je touche du bois bi ma fi ñëwee ba tey vraiment maa ngi waxtaan ak gaañ yi gaañ yi ci liggéey bi jàmm sax tax nekk na fi yàlla na continuer ñu koy sax sàkku ci seen kilifa diine fi toog ak ñoom imam ñu yàgg ñu ñaanal ci loolu jàmm yàgg sax ci hôpital Youssou Mbargane pour coow yi fi yàgg am ba ñëpp daan leen ci xaw a ràññee mu bañ fi ñekkati pour de bon mu fàtte ko pour de bon bu loolu weesoo nag bon adressé wu un ou rek au personnel euh, may jeexal di wax ne rek te fan yi li xew ci hôpitaux yi ak li xew ci presse bi télévision yi rajo yi ñëpp dégg nañu hôpital yi la teg au devant la scène ci wax yoo xam ne bon mun nañ nii sax yenn yi xa nit ñee koy fabriqué rek mais boo duggee ci hôpital ko xam hôpital xam ni man li may dégg ci rajo bi

dilen wax wax ju tay ju oyof ju gat ju bu mu gàtt ko fek ku fek nit kuy dugg ci hôpital même bu dee waxuloo yow jëlal une minute ñëw waxtaan ak moom laaj ko lu xew may ko tuuti temps defe naa loolu bu ko defee bés xol yi oyof te noyal wax ci yëpp rek defe naa incha allah fan yi procès yi ñuy tënee ci rajo yeeg télé dina deñ parce que li xew Louga ñëpp a ngi koy regretté ñu ngi ci profité di jaalee famille boobu donc di ñaax rek suñu personne bi daal nañ góorgóorlu nañu bëgg malade bëgg hôpital hôpital moom mënoo fa liggéey te bëggoo hôpital hôpital ku fay liggéey da koy bëgg waaw donc na ñëpp defaraat taxawaay man lool rek laay ñaan personnel bi tey ñoom ñu fi toog ñëpp gën a mën a accueillir nit ñi gën a mën a waxtaan ak nit ñi waxtu tey gën leen mën a accueillir defar wax ji daal na rafet na yëpp rafet donc ba loolu weesoo daal damay maari maa ngi ñaanal ñëpp di ñaan di yàlla na sax ay ati at di ñaan personnel bi leen ñaanal yéen ñëpp personnel bi fi toog ak kilifay yi toog yëpp jëf maama خليفة بابا كرسي جلنا نولا أمايكم أصاب الفين بابا كرلحيجة في أمايكم أصاب الفين بابا كرلحيجة في هو الحاج منصور برم القوم لا يأبي محمد منصور منصور sëñ Bay Mansour fal ba def leen nii ñu màggal Mamadu Mansour Alaaji Mansour mooy baay sëñ Bay Mansour fal ba def leen nii ñu màggal Mamadu Mansour moom ma ca gannaaw baayam sëñ Bay moom mooy fal baay

أنا صبي سجن بابكري عرفت الورى سرغل أنا صبي سجن بابكري عرفت الورى سرغل وغربا ورا أرى كم بصفة المنصور في سائر الوطن واو إذا صبغ الأقواد يوما إلى الأولى يكون إماما في الورى الورى الورى والورى محمد منصور محمد محمد محمد منصور waa hôpital bi laaji waa yàlla alaaji Mansour aca jóg leen taxaw màggal alaaji Mansour ey ma ne jóg leen taxaw màggal Mamadou Mansour alaaji Mansour sëy Mansour loxo inni araftu bi rabbil bayti wa tuuri ما إن رأيت الفتى فيناك منصور واو نجلي إمام همام الحاج مالك كل شيخ المشايخ مخريري xiriiri moom Mansour eh Alaaji Mansour Malick Baye sëñ bay Mansour loxo araftul wara sarxan ku fi gën a bëgg sëñ Babacar loxo yi araftul wara sarxan wa garban waraara bi sifatal Mansour fii saa'iri فقه وإذا سبق الأقوال يوما إلى الأولى يكون إماما يكون أماما يكون هماما الوراء الوراء الوراء والوراء محمد منصور Mansour Mama Abdoul Aziz Dabakh deesu ko jëm jadwa yow ku ma soppal Dabakh Malick loxo yi ca kaw jadwa yow ku ma soppal Dabakh Malick loxo yi ca kaw jadwa yow ana soppay Dabakh Malick loxo yi ca kaw jadwa ku ma Ah, ñi wax né Cheikh mbay sek ñaan na léegi ah am kàddu yo xamné rek mom la bëgg sanni sante ak ngeureum rawati na nak ñimu andal ñew parce que temps dafa cher bu len waxé kay len gën gungema ñu bayyi lepp ñew rek ah fekki ay mbokkam ay xaritam ay àndandoom ay doomu ndeyam ah kon kon Cheikh Mbaye Seck gulu si kàddu yi cër la rek mais dafa fekk protocole yi ci administration dafa am nu muy doxe te samay kilifa dañu fi nekk ndax euh, docteur wage ñoom ñoo ngi nii représenté faatu mbay Mbaye la direct ak docteur wan ñu représenté faatu mbay Mbaye la muy directrice générale des établissements publics des établissements de santé du Sénégal muy sunu kilifa kon sunu waxee da dul tegginu sax ñu teg si ay comme jox nañ correct, nous rek ñu ñaan leen si seen ndigal ndax docteur Wagué wi yemul nekk direction générale des établissements de santé man sama maître la parce que bi may def spécialisation dentaire moom moo nekkoon sama professeur pédodontie wa donc euh, man du direction bi moo ma booleeg boobu <laughs> ma nekkoon nag étudiant terrible <laughs> vraiment ñoo ngi sant di gërëm di la direction générale des établissements de santé euh, d'ici si teg euh, ñi nga xamante ni ñoo conseil d'administration hôpital bi di si mon ami mon frère Mamadou Ndiaye di directeur hôpital bi parce que dama koy wax man ak moom dañu jàngandoo moo ma jiitoo woon un mu dëkki Thiès am boog tànk bu dëgër Thiès euh, man ak fa grand frère am ñoo ñoo dend kër sax donc kon ñoo ngi koy kii du nuyu nag personnel bépp di ko jaarale si ñaar représentant du personnel au conseil d'administration sama rak sama xarit ma Njoba Seck di ko jaarale si docteur ngoone sàmba chef du service de la maternité présidente de l'amicale muy amicale bu am solo de naa ce me représentante personnel, mi ngi toog xadam xadi samake toujours dama koy joxe exemple si ou Youssou Mbargane waxuma conférence avons ni organisé waxuma billet màkk yi waxuma mais li ñuy def si social jëmale ko personnel c'est extrêmement important Ta sais à peu près ni moins musuñu ko fëgg wax ko social te docteur Ngone waxul amical bi mu def si lu mu si man léeg-léeg sax dama ko daan wax ne ko docteur dafa naa ni liñ lay jox fin du de est-ce que du sa poos ngay joxe te il lui est arrivé mu yëkkati si poosam malade bu ñu doon dimbali mu yëkkati xaalis jox ma ni ma directeur maa ko si participer loolu du amical ba ndax xam naa amical da daan am procédure donc docteur Ngone yaag sa amical ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla amical bi yàlla gën ko saxal yàlla gën ko suuxat yàlla gën ko sàmm en tout cas su ma dikkee fii damay am mbégte ndax damay xam ni ñaar moo fi am fàttewu leen ma maa ngi si yéeni xel ma it fàttewuma leen yéen a ngi ni samay xel yàlla bu nu fàttente yàlla bu fàttente parce que su fekkoon jóge naa fi ñenn jógin bi ah, mu am nu mu demee kon tey lii du am du ma fi ñimee ñëw bay ànd ak mbooloo may àndal ndax su chef saf ñëwee chef de service des soins infirmiers ñëw représentant personnel ñëw ànd ak seen assistant ñu ànd ak le représentant des médecins docteur Cheikh Ndaw muy chef de service médecine interne kon man na maa wax ni hôpital ba ñëpp ñëw na te ñëpp it amoon nañ yéenee ñëw dafa bari ay laylatul xadr foofu dant am sax laylatul xadr loo xamante ni dañ koy def moo tax mais ñi bëggoon a ñëw bari na docteur Ndaw ay vers minuit une heure du matin là comme message que je suis partant parce que mon sama là, la suis xarit la donc vraiment ce que li nga que je lañ je mais l'occasion faisant le larron si je yi lancer un message secteur bi lol lol lol lol mais sañ dina len wax ni len dama len di delo ci waxu Cheikh Ahmed Bamba khadim Rasoul daf ni won ñaar mo jafe ñu ko lan mu ni tiit dessé aw fit mer dessé am xel ta nak amna defalin yo xamanteni doomu adama bi nekatul akum xelam ta soy dem di dem di dem di xous rek da fay muju am lanen lu mu jur ak nanen lu mu demé yalna yàlla def delo ci wat xel yi ak xol yi secteur bi ben bopp la c'est kaw ba si suuf kenn mënu ko xar ñaar il faut que les gens se ressaisissent en un certain moment té kenn ku ci nek tok ni man lan laa war a améliorer ci man pour mu gën a secteur bi kalam au lieu de dire ki le ki na ki le directeur bi na personnel bi personnel bi na directeur bi le ñii naa ministre bi le ñii naa DGS la ñiin ça ne nous rapporte rien du tout té daf ñuy gën fragiliser tout simplement né nit ñi délo ci seen xel ak seen xol en tout cas, man, c'est un message que je lance. Il y a de cela un an, c'est On nous disait nous avions le meilleur système de santé du Sénégal, le meilleur ministre, le, les meilleurs directeurs, les meilleurs agents. Un an après, nous nous voulons qui aime bien, châtie bien. Nous nous nous pardonner. Nous savons mag ñu baax ñëpp y compris Cheikh Sidi Hadj Malick min fiy tagg wax ay wayam avons tey nee woon su nous avons woon jamono fat lay jàng ngeen bëgg nag jël métier bi ngeen xam ni moom la wàllu yëpp bëggoon a doon ngeen bëgg ni day yomb fii ku fi am lu baax danga ñàkk ba sonn day gën a métti de day gën a saf te kenn du si génn nan gën a boole xol yi bàyyi lancente xeer yi ça ne nous rapporte rien du tout ça ne nous mbir mi fa mu yàqoo yàgg na mais nag ñum ñoo koy defar am na loo xamante ni comportement personnel la sa kër ya la commencé door a ci su hôpital yi mënuma tëj te nuyu ma sama chéri na ba ndaw Badam Ndiaye vraiment bee passé nag tey suñ tiiree bi màkk du ma tiiree de ndax maa tiiree sama chéri gañe woon ko oustaz ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaan yàlla yàlla mu kartanal la yàlla yokk la directeur Modou Ndiaye vraiment merci beaucoup yi daje ci santant bu yiw bi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 bokki am di jàmm yi bokki pas-pas yi wëllëre yu góor ak yu jigéen yi ginnaaw bi ñu santee sunu borom yàlla mi ñu defal xéewal gu réy gi te mooy mu tànn xeetu sallallahu alayhi wa sallam may leen weeru koor xaaj ko def ko ñetti parti parti bu njëkk bi mu ne fukki fan yu njëkk yi ku ko woor maa la gàddul yërmande yowmal xiyaamati ñaareelu parti bi mu ne ku ko woor di ñett fukki fan yi ci digg bi loo ma def ci lu ñaaw walla nga juum ko sama diggante yow ma baal la ko ñetteelu parti bi ci lañ ne mooy fukki yu mujj bi yàlla na yegg mu ne ku ko fekkee te woor ko maa la yi maa la yoreel billet ticket direct aljanna muy ñett yoo xam ne benn bu ci ne daloon na xel kon bu ñu dee ay julit yàlla boole ñu ci xéewal googu bu ñu dajee balaa ñuy def dara ñu ndokkeel leen ci yàlla nañ ko muurloo ginnaaw ndokkeel may yëkkati kàddu di ci jiital directeur hôpital bi di alxaaji Mamadou Ndiaye moom la fi yàlla teg tey muy kilifa gi ñu di ko ziyaara di jaa di nuyu njabootam gii di ko jaare ci moom di ko ñaanal yàlla yaakaar di kilifa yi am ba tax ñu dénk ko bërëb bii yàlla na ci am lu weesu njortoo di nuyu Malick Diawo mi topp ci moom di ko ziyaara di nit ku baax di nit ku woyof di nit ku yaatu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak réussir ci mission am di nuyu ki nga xam ne moo fi représenté mbooleem doktoor yi di docteur Elis Camara di ko ziyaara bu baax di ko nuyu di nuyu docteur Cheikh mbay Seck mi fi nekkoon te jóge fi te yëkkati kàddoom yu rafet yi mu daane léegi ñu di ko nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla waaye di nuyu amical bi yépp te di ci diital kilifa gi yàlla jiital ci kanam mu di présidente soxna Bintu Ngóone Sàmm di ko ziyaara bu baax di ko wàccee wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla yaakaar ji mbooloo mi am ci moom ba jiital ko yàlla bu mu tas yàlla na réussir mission am njiit dafa jafe rawatina boo jiitee loo xam ne ña ca ëpp ay jigéen lañ kon maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko wàccee cër bi mu am te mooy ñu tànn la nga ne ci kanam docteur yàlla na la yàlla jàppale yow tamit yow ak docteur yi lay jàppale ci mission bi di nuyu docteur Ndeye Marème njaay di ko ziyaara waaye di nuyu tamit madame njaay di ko ziyaara moom it bu baax ak trésorier bi nga xam ne moom lañuy ñuy dénk li ñépp gën a bëgg muy xaalis bi muy soxna Roqaya Ndoye yéen da ngeen a fekk koo xam ne mburu rek ko tee nelaw ngeen dénk ko xaalis bëgg ceeb ba buñ ne dogg leen balaa naan kafe na ana ceeb ba ngeen dénk ko xaalis tur yàlla bu ñuy wax yaa mburu moom ngay wér weer naa la yow na ba ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara moom it waaye di nuyu docteur Ramatoulaye kamara ci kàddu yu rafet yi ñu wax ci yow waaye di nuyu nag soxna Fatou Mbaye Sylla ak délégation bu am solo bi mu fi yebal ñi mu yebal ñépp ñu ngi leen di nuyu di yóbbante nuyoo ca soxna sa doon jigéen du tee nekk kilifa waaye jigéen la waaye yàllaa ko def kilifa muy kilifa goo ko man kon yéen ñi mu yebal ñu ngi leen di yóbbante nuyoo ak ziyaara ci moom ak di nuyu Omar Cissé moom it moom lañ ko tuddee di ko ziyaara bu baax bokk na ci ñu ko tuddee boobu waaye di nuyu di siyaara koo xam ne moom laa waroon a jiital muy imaam Xaaji Maxtaar Njaay di ko siyaara toog nii ci sama wet di boroom xam-xam ak imaam Adama Sàmb sama soppe Adama Sàmb ku baax la man maa ko gis rek sopp ko te yàlla tax xaw ma nag lu tax muy nit ku yiw moom tamit di nit ku baax yal na ko yàlla jàppale yaay maam yal na la yàlla defal sutura yal na la yàlla yeggale ni yoon di nuy xalifa Ababacar Ndoye di ñuy ab Guèye di nuyu di siyaara retraité yi fi nekkoon te jóge fi ñëw ànd ak yéen ci liggéey bi ñoom it yal na leen yàlla fay waaye di nuyu Malick Boy mi yoroon microcentral taxawaayam rafet na diñ la santoon def nga ko rafetal nga ko lool sayidul xawmi xaadimuhum yonent nee na mbooloo moo dem bu ñu lay laaj ka ca gën fekkal ka nga xam ne bu ñëpp toogee muy sonnal ñëpp di nuyu di siyaara Mama Fall mi nga xam ne moo yor organisation bi jiite ko ak ñi koy jàppale di ci teg madame Ndiir sunu xarit sunu soppe di jigen ju bax di jigen ju yu di jigen ju sel di jigen ju bëgg lu bax di jigen ji bëgg ku bax di ñaanal momit di ñaanal njabotam yal nako yalla jappale di nuy haaj ma njobba sek ci taxawayam di nuy haaj ndukuman ñi nga xamne jamono bu ne ñoy dox sama digante ak yeen di porter seeni message di ko jëme ci man ak ku demee ni Omar Ngala ñoom ñëpp di wax lu rafet di jóg ngir lu jëmee hôpital bi ak amical bi kanam loolu bu ñu ñëwee ci kanam kilifa gii di Mamadou Ndiaye ak Hadj Malick Diawo ak Cheikh Mbaye Seck mi fi nekkoon ak yéen ak soxna Bintu Ngóone dinañ leen ko seedeel ndax yéen lañuy liggéeyal man na xawma dinaa conférence wala déet ndax man gan la waaye may nuyu woykat yi jotaay bu ñu dem rek ñaar a fa gën jotaay boo dem ñaar a fa gën ñiy jàngale alxuraan ak ñiy tagg yonent bi yonent moo ko wax waaw xayrukum man taallama alxuraan wa allama mbooloo moo dem ka jàng alxuraan di ko jàngale moo ca gën waaye ginnaaw jàng alxuraan na tagg yonent bee ko gën kon yéen yal neen yàlla fay di nuyu sunu mbokk yi jógee ca imaam Abdou Aziz di sunu xarit man nak dama ne est-ce dina conférence parce que man gan la dafa am ñuma wuy ci waye ñuma wuy ci ñaar ñaar ñoo ci jitt muy directeur école bi ak directrice su amicale bi ñaar ñep ku ne jël na cadeau wax ba sante ken tuddu ci ñom ñaar kenn lu yuuma ci tuut mané man té ma ñibi luma def mo man té ma jog ñibi yow ñinga wuy si ñu nga jiite ñoom yëguñ sax ne nga xanaa duñ ne dañ koo fàtte wala dañ maa xamul ndax carte bi def naa Alioune Diagne ci ne ah man de xaw ma lu ma def wala lu ma def madame Ndiir lu ma def damaa bëgg ngeen wax ma lu ma def ci ginnaaw gi ba yëguma ko ah aha ma di leen ñaanal yàlla bu baax damay faral di wax ne docteur ah. ah jërëjëf waaw bii nuyoo de moom remplacé na nuyoo yëpp jërëjëf yal na la yàlla fay damay faral di wax ma ne noblesse pire boo koy wut demal ci docteur mooy ku noble yëg nga ne cuune du nekk docteur demal école fànn la boo xam ne ñi ñi ndaare ndaare yi ñi nga xam ne munuñ jàng munuñu fexe ba nekk docteur docteur mom mention très bien ngay am doko ko dem ci branche médecin médecine man ci réussir kon moy ko xamné ne sam jang do cuune nga dem ba am sa fonction wara a liggéey li gëna neex nga xagn ko sa bop jox ko jaamu yalla yi moy intimité sa njabot duñu ñu doyal ci yow sa soxna du doyal ci yow sa borom kër du doyal ci yow say dëkkandoo duñ doyal ci yow koo xamul fu mu jógee mooy ñëw indi malaatam indi ay caprice am docteur Cheikh wax na ko léegi coow li am fan yi ci réew mi yéen ñii du ngeen ma bàyyi ma fen yéen ñii tiim ñii feebar kenn ku ci nekk am nga bis boo xam ne daj nga coono boo xam ne ci médecin ci ci ci ci malade coono boo xam ne waxoo ko kenn ba léegi fàttewoo ko te mosoo toog wax yéen ñii kenn ku ci nekk ci yéen am nga benn bis ñu indil la benn malaat nga boole ca jaaxle boole ca tiit wala heure ba mu la fekk wala léeg-léeg sax ngay faj nit fekk yaa feebar léeg-léeg nit ñëw indi feebar te yow da ngaa siburu yow nga bàyyi sa siburu yow di daw di ko sampal ay bouteille di bind ordonnance nang na garaawul su ma jógee jël ay garab xam nañ nag ñoom garab yi ñuy naan ba seen yaram mën a calmé wu ñu mën a liggéey xam nañ loolu duñu la ko wax nag waaw kuy daj loolu benn erreur am ñu bëgg a jël généraliser ñépp ne kenn baaxul waaye kenn ku nekk ca la ngay liggéey la la yàlla dina nattoo moo tax thème bi ñu tànn tey muy cohésion ak nekk benn ak ànd bu rafet ak usnul muasharati li arab di wax dina dimbale képp koo xam ne déglu nga mat a topp ma doomu yi sunu borom yàlla moo wax ne doom aadama na nga bàyyi xel ne dama laa bind ci coono dama laa bind ci nattu dama laa bind ci problème ku yàlla bind ngir nattu nag bind la ngir coono da ngay xam nooy doxalee sa àdduna pour mucc ci damay liir benn téere mu ne jamonoy léegi boo ciy dund na nga bàyyi xel lii may bëgg a wax nit ñi tànka yaa ngi leen di manal ñu ne yaa baax booy am walla nga leen di manal ñu ne aka baax soo amatul wala mën a na tuloo leen dara ñu bàyyi la boo feebaree kenn du lijjanti lu la tax a feebar kenn du la lijjanti lu la tax a faju soo dee ñu fàtte la ñu la meree fexeel la bu pexe mu jubul ñu yàq sa der jamono bu toll noonu nag ku ciy dund te yàlla dafa waxoon ci alquran ne wala tastawi alxasanatu wala sayiatu waaye idfa billati hiya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun amimun wa ma yulaqiha illa alladina sabaru waaye wa ma yulaqiha illa du adin azimin yàlla nee na ba ba lu baax ak lu bon du ñu yem boo ci yuusu mbargaan bii di liggéey nit xool la rek nga soof ko wala nit contre la wala nit bañ la wala nit di la gaaral wala nit di la sewal la muy def jàppal na jikkoom la yëguloo ne léeg-léeg nga dégg ko ne man di diw xawma lu ma ko def man daal man rek la bañ koo dégg muy wax loo rek dox la nit du bañ nit parce que ki ngay bañ dangay man ci moom dara ku yàlla indi fekkee woo ko bu ko yóbbu doo ko fekkee yow sax bi ngay yow yëgoo ko booy dem xamoo kañ la loo fi def nit rek sa jikkoo ngay wane déggoo li ma wax de ki lay indil problème wala mu bañ la bul jàpp ne dalaa bañ da ngay jàpp ne moom dafa amoon benn bitigu mbagg ci mbon di ca góorgóorlu ba ubbi ca kantin di ca góorlu ba am ca bitig di ca góor góorlu ba am ca benn grossiste bu mag mu ne comme nag bari la naa naa yàkkale faaqidu shay'in laa yooti nit lu mu la rek boppam la la kon bo beugé nopp lu nit indi togal deglu bu comportement am jexé ba nga xam da nga né ah kon ki ni la ko yalla bindé man duma yobbu ci ni mel waaye yow hé yow de laccé woo yow li nga may jaay ah pap pap pap pap pap bak nga ndiak yak ngoko jaruko bakok bopam dom adama kenn ku nek namu rek lolou la xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ci mbaxam ci yom pour wone ne nit buy dund ak nit ñi il faut muy pardonner il faut muy jéggale il faut muy jéllale il faut muy muy muy xam di ca ba sunu mama Alaaji malik si dañ ko laaj ne ko yow si malik lu tax sa kër musul am coow mu ne du téere bu ma takk du gàllaaj gu ma suul du saafara bu ma sangoo jikko la te jikko boobu kilifa gu ko jikkoo foo jiite jàmm am fa ñu ne ko jikko boobu ban la mu ne xam ba ca jéggale lu ma mën a fayu dégg nga ma la xam ba ca jéggale lu ma mën a fayu nangu lu ma mënoon a bañ yaa ngi dégg léeg-léeg ñi nga jiite teg la charge yoo xam ne sañ nga koo bañ te kenn du na déet nga nangu ko ndax jàmmu am waaye man kenn duma jaay affaire ah yi seen affaire yi dangeen koy téye ah, ah ah yàllaay tànn kilifa yonent bi ci jàngale àdduna ak jàngale doomu aadama dafa war a mën a pardonner gis nga kilifa lu mu jiital lu dul baale yàq na ko waaye njaboot lu mu jiital lu dul yar yàq na ko njaboot dafay yaru njaboot day joxe xorma njaboot day nangu ñu yilif ko kilifa day baale kilifa day jëllale kilifa day nangu lu mu mënoon a bañ sayyidatuna Aïsa dafa toog woo benn xale bu jigéen mu ñëw mu ne ko demal may ma ndox te xale bi jaamam la xale bi dem tànk ndox ñëw di indil sayyidatuna Aïcha ndox nuyoo xëcc rido bi yem ci yonent bi mu toog ci kaw lal bi xale bi xool yonent bi tiit parce que yonent bi personnalité ak koo mën a doon soo ko nee jàkk il faut nga raf personnalité yonent bi kenn àttanu ko yëgoo ne bu mosaan ne tàyyi jant bi day dugg xale bi xool ko tiit daal di lox kaas bi daan na yaay Aïcha na ko yow lu tax nga toj sama kaas sayiduna muhammad na ko lu tax nga wax ko lu tax nga toj kaas bi mu ne ko xanaa du sama kaas mu ne ko xanaa du yaa ko yónni ah bu ma ko yónnee day toj sama kaas mu ne ko soo ko yónnee day toj sa kaas annabi nii ngay àttee mu ne ko waaw lu tax mu ne ko xoolal daraja ji la yàlla jox nga waroon a bokk ci ñiy yónni yàlla boole la tey ñi ñuy yónni yàlla boole la ci ñiy yónni nga waroon a bokk ci ñi jox ndigal yàlla boole la ci ñiy joxe ndigal ñu koy eh, exécuté koo xam ne koo yónni mu kontaan kilifa goy ma woo may ma ma ñëw non kilifa non non wane na man damaa jege kilifa gi ñay tiitaroo kilifa gi maa ko jege luñ la ci nga fayu mat matatoo mu ne ko da ngay xool jiital gi la yàlla jiital ba koo woo mu kontaan koo yónni mu kontaan koo sant mu kontaan la nga leen di sant la cay njuumte nga xam ne doom aadama matul nga jéggal leen ko ndax sa grandeur waa hôpital bi laaji waa yàlla alaaji Mansour aca jóg leen taxaw màggal alaaji Mansour ey mën jóg leen taxaw màggal Mamadou Mansour alaaji Mansour لقو إني عرفت برب البيت والتور ما إن رأيت الفتى الزينك منصور واو نجلي إمام همام الحاج مالك من شيخ المشايخ مخريري مخريري من منصور